bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer bu tedd bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fa yéen weesu ñu ngi jeexaloon siratu sayidina abi bakran abi bakar as siddiq tey jii ñu ñëw ngir andi ki ci topp ci kon ci sayidna abou bakar mooy ki ñaareel ñi ñuy tuddee al xulafaa mooy nit ku màgg koo xam ni buñ koy xool mu ngi bokk ci ñi gën am doole ci nit yi histoire yi Seydina Omar buñ koy xool mi ngi bokk ci ñi ci gën a ñi ci gën a doxal seenu seenu ay buñ koy xool mi ngi bokk ci ñi gën jub ci ñoom am xel Seydina Omar mu ngi bokk ci ñi gën a sori gis-gis ci nit ñi Seydina Omar mi ni bokk ci ñi gën a téye seen bopp ci yëfi jàmbur ci nit ñi ab dundam dafay yell lool ñu jàng ko jàng bu mat sëkk te settantal ko ndax dafa doon ko ab tegtal la ci ak ñene akuk yeewute akuk maanute doo nit kuñ war a roy ci ñàkk nelaw guddi ngir sàmm sag njaboot loolu ku ñu war roy ci ak dëddoom àdduna ak dundam bu ñagas ak nag jeexal ab dundam ci fas yéene kenn ku ne ci ak njabootam la war a agsi ci yow ci aw yiw agsi ci yow mu doon ko du gënale diggante mag ak ndaw mbaa muy gënale diggante ku woomal mbaa ku ñàkk mbaa muy woyefal mbir ngir ni borom gone la mbaa muy woyefal mbir ngir nekki ko moom day ak faqiir Abu Bakar daana gendiku ci Seydina Omar ab ak tar muy nit ku tàng diine la ku am kàttan waaye nag amoon na kóolute ci moom ci nit ku sellal la nekk kon képp ku ñuy sàmmuloo yell na ci yow ak gépp kilifa gu yilif dala nga teg dundug Sayyidina Umar ci sa kanam jàppe ko mu doon saroy waay ngir ni mu ittewoo woon nit ñi ku xool ci moom dana doon ab làmp boo xam ni daf lay leeralal ci say atte dana la leeralal yoon wi ci saw doxin sa digganteeg nit ñi te ku jàng taarix tàmbulee ko ca kaw ba ci suuf dana ci xamee ni jamono bi yonente bi di dund ak jamono yu xulafaa wu di gën ci jamono yi mas ci monde jamono yi monde bi mas gis ci jamono jamono yooyu yenn melut melut ci li moom muy ñeme mbañu ndurs ak dëggal maandute ak fegu ba loo moomul nga bàyyee ko fa loolu mosuñu gis jenn jamono di ci roy jamono yonent bi ak jamono xulafaa ni kon seen gouvernement mooy gouvernement bi gën mooy gouvernement bi nga xam ni ni mu sàmmee ak njabootam sellale ne ak njabootam jubbante ni jikko yi ak njabootam mësula am ci adduna bi غيناو بو يالنت دي جالي اك كان موي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عدي ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزا ابن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي ñu ngi koy dàkkantale abu hafs ñu ngi dajé ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbokk ci juroom ñaareelu maam omar mi ngi juddu gannaaw xew-xew ba ñuy tuddé harbul fijar ci ñent at gannaaw bu mu bu ba mat ñeenti at ci la gane addu mu tollo 580 ñoom téeméer ak juroom ñett fukk ak benn ci juddu ko ay sa Omar dafa doon koo xam ni jëkki islam ji ñëwit ko amoon teraanga la ci biir mbooloo ma muy dund muy mbooloom Quraysh Omar moom lañ doon defoon safir safir nag buñ ko waxee mooy ndaw ambassadeur ci misaal mooy ndaw li dox diggante giir gi ak giir gee nga xam ne bu ab xare masam xew moom la ñuy yónni muy dox ci diggante bi ana nu meloon Seydina Omar am njool la woon waaye ku am yaram la dafa leeloon dafa xees xesaay bu jëm ci xonq nitu càmmooñ la woon te mooy koo xam ne ab càmmoñam moo ko gën jubu ku gaawoon ab dox la mu ngi jébbalu ci atum juróom benneel ci nubuwa gi ginnaaw bu ñu yónnee yonente ba ma juróom benn ci la jébbalu li muy jébbalu mi ngi am ñaar fukki at ak juróom benn ana nan la jeblo jël nañ ci abbas radiyallahu anhuma mu wax ni mu wax ni fan yari nit ak ñent fan yari nit ak juróom ñent jeblu nañu bu kon mom Motuli, lim bi ñen fukki fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanoon na ni yàlla yal na nga terale islaam ci ki la gënal ci ñaari gaay yi muy Omar ibnul Xataab ak Amr ibnu Hisham te moom la ñu wooye Abu Jahlin yonent bi moo ñaanoon yàlla ni ko allahumma aizz al Amr ibnu Hisham te muy Abu Jahlin Usaha tu zayd nett dina jële ci bayam mu jële ko ci bayam mu jële ko ci mamam jële ci bayam mu ci mamam mu wax ni omar di len wax ni len ndax bëgg ngeen ma li len nan la jeblo ñu ne ko waaw mu ngeen man de ci ñi gënoon a tar ci yonente bi la bokk waye ben bis damay dox ci bis bu tar aw tangor ci digg digg ci may dox ci lenn ci mbeddi xawma lu may man a jeg benn waaye bu bokk ci waa Xuraysin mu ne Ibnu Xataab ana foo jëm yow yaa ngi ne nii nga nii mel ci ak ak ak te mbir mii ngay bañ dugg na sa kër see ko nee ma ne ko na ma sa rakk yu jigéen jàdd na te mooy dugg na ci dina islam nee na ma wëlbati ku mer lool te booba yonente bi daan def ñi jëppalu mooy fab benn waay ak ñaari waay di leen boole ak koo xam ni moo leen ëpp kàttan mu di leen aar di leen dimbali ci ab dund jamono yooyu ñi ngi yebaloon ñaari gaay ci mbokk ci borom këru sama rakk jigéen jooju yabal na fa ñaar ñoo xam ni moo leen di yóbbaale ci dund nee na bi ñu waxee loolu mu ñëw ba fëgg bunt bi ñu ni kooku ma ne leen ibnul xataab nee booba fekk ñi ngi toog ci biir di jàng alxuraan bi ñu déggee sama kàddu ñu daal di jëkkante daal di nëbbu bàyyi fa téere ba jigéen ji jóg ubbil ma buntu bi nee na ma ne ko yow sa sa noonu yow noonu boppam yow mi noonu sa bopp dégg naa ñu ne dangaa jàdd dangaa wàcc aw yan dugg nga ci diine Muhammad daal di yëkkati lu ma yoroon ci sama loxo dóor ko ko bu ma ko dóoree mu daal di sotti deret jigéen ji bi mu jësee deret ji daal di ni ma nag lu la neex defal na nga xam ni jébbalu naa dugg naa ci diine ji leen ma daal di dugg toog ci kaw lal bi bi ma xoolee gis ab téere bu nekk ne ci pegg ba nen ma ni téere bi lan la ni ko jox ma ko mun ma duma la ko jox ndax yelloo yeyoo ñu dina ko jox ndax yow do sangu jana ba te do lab te tere bi lay masahu illa al mutahharoon ku dul ko laab doo ko laab nee na ko sonal bam jox ma tere bi ma xol gis bismillahir rahmanir rahim neena bima rombe ma ar rahmanir rahim dama tit dal di sànni téere bi ma wat bi sama xel dellusee ma yaat ko gis sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim nee na saa bu ma rombee aw tur ci tur yàlla yi rek dama yëg tiitaange ci sama xol daal di xalaataat sama xel ba àgg ci aaya bi mu waxee ne aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fihi aaya bi wax ni gëm leen yàlla akub yonentam tey dundale ci li mu leen def ngeen wuutu ko ci ma jàng ba àgg ci baatub in kuntum muminin nee na ma ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nee na mbooloo moom daal di gaaw génn di wax allahu akbar sa kaw ngir bëgg ci baat boobu ñu dégg ma wax ko daal di sant yàlla daal na ma yow ibnul xataab bégal ndax yonente bi déggoon nañ muy ñaan bi su altine jee ne allahumma a'iz al islaama bi ahadi bi ahabbi rajulayn allahumma a'iz al islaama bi ahadi rajulayn imma hamra bni hisham wa imma umar bni xataab loolu ibnu asakir moo nekk riwaaya boobu mu ne ko déggoon na muy ñaan bisu altine bee di wax ne yàlla yal na nga tarale génne ci kenn ci ñaari gaay yi benn muy Amr ibnu Hisaam wala Umar ibnu Xattaab ni ko nag yaakaar nañu nga doon wuyub ñaanub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñu ne dëggal naa ñu daal di may tegtal fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ma ne ana mu nekk ñu ne ma ma nga ca genn kër gu nekk ci ron Safa daal ma koy leer te mooy kër al arxam ma genn dem ba fëgg buntu ba nee ba ma fëggee buntu kër googu yi ñooñu ne ma kooku mu ma ne leen ibnul xataab nee kenn ci ñun ñëwatu ubbi buntu bi nee na yonente bi ne leen ubbi leen ko ubbil leen ko ndax bu yàlla namee ci moom aw yiw dana ko bindi nee na ñu ubbil ma ñaari gaay ñëw jàpp ci samay përëg ba ma jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ko nee na ñu bàyyi ma ma toog ci kanamu yonent bi mu poñe ma jàpp ci sama baat boobu xëcc ma ma jëm si si moom mu ne ma jébbalul yow ibnu xataab daa ne allahumma hdihi yàlla yàlla nga ko gindi nee na ma ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah seere naa ne yàlla rekkee boo te yow mii yonent bi yàlla nee na julli daal di kabar kabar bu kawe boo xam ni nit ñi dégg nañ ko ci mbedd màkke te lu jiitu loolu ku masaan jébbalu su ma gisee ñu lay door dama ciy bég damay bég ci gis ku ñuy door ngir jébbalu gum jébbalu nee na nag bi ma jébbaloo man yaa may itam nag bëgguma lu dul la dalan sama morom yi jullit yi dal ma moo tax ma dem ba ci sama nijaay ma fagg buntam mu ubbi ni ma kii kan la ma ne ko ma ne ibnu xataab mu ubbi ni ma lu mu doon nee ma ne ko ndax yëg nga ni jébbalu naa nee na mënuma def nga ko nee mané ko amu bu ko def nee mané ko jëbbal na nee na mu di buntu bi ko nee bima bi loli ma daal di wëlbati ko am ben way bu ni ma da nga bëgg nit ñi xam ñi jëbbalu ko kep nee mané ko amu ah, ni ma da ngay xaar ba nit ñi tok ci wetu kaaba nga dem ci diw nit la ko xam du neub du neub sak rek kanu boko ne li sama diggante yalla dama lay leeral ne dama jëbbalu ñepp dañ ko dégg Omar nee na ma defe ko ni ma ko waxee bàyyi bañ toog ma dem woo waaji bañ ma ne dama la koy leeral man damaa jëblu nee na mu ñëw daal di woote ca kaw ni Ibnu Xattaab jëblu na nee na nit ñi jóg tàmbali maa dóor may fayu ba sama njaay dégg coow ni loolu doon ñu ne ko Omar Ibnu Xattaab la dafa jëblu ba ña ngay ña ngay dal ci kaw mu daal di dikk joxañ leen ni leen kii ci sama biir kaaraangeel nekk maa ko aar nee na ñu daal may bàyyi bañ ma baye ma gis ni la dalon julit yi ci ay dóor ak bu ndox dal daluma lolou neexuma li ma bëgg moy fa ñepp jaaram na fa jaar ñu ma ne lii dara di demat ba ci kotu Kaaba ma fekk sama nijaay tok ma ko déglu mu déglu ma ko aaraange kaaraange ji nga ma aron delo na ko legi delo na sa kar nee na mënuma bu ko def na ko sa kaaraange boobu bëggatuma kenn di ma aar nee na mënuma lu la neex defal lu la neex nee na ma tàmbali nit ñi tàmbali maa dóor may fayu ñu nekk ci noon yi ba ñu yàlla terale islaam mu fay xomar jëkk muy jëppulu ku taroon la ci jullit yi jëkk xomar di jëppulu dafa doon ku teen ci jullit yi am na benn jëbër boo xam ni ci bani mu am waa bani mu amal nekkoon xomar mbugal na ko mbugal yu tar ngir jëppulu gi mu amutan ci mom ben yermane ya ma ak ñewut ba abou bakar moko muju jënd goreel ko omar dal na ci kaw ab gorom ak rakam ju jigen ngir jëblu jëblu tayit ko ku amun bëgg-bëgg la ci ray yonante bi sallallahu alayhi wasallam amna sax riwaya bo xamni dafa netti ni omar dafa jogon ngir ray yonante bi ràngoo jaaseem ba mu demee la islaam dugg ci moom mu jëpp lu am riwaayaat yoo xam noonu lañ ko nettali waaye nag Omar ana lan moo ko dugal ci diine islaam ndax dafa ragal kenn ba tax dugg ci ndax ci doole lañ ko jaare ba dugg ci diine islam ndax dafa am njariñ lu jëm ci boppam lu muy xeemeem ba tax mu dugg ci islam déedéet lu benn ci yooyu Omar dañoo jàng alxuraan mu dégg ko alxuraan dugg ci ab xolam jeexital ci am xelam mu xam ni wax jii du waxi doomu aadama wax yàlla la loolu moo ko tax a kon Omar dafa toroxlu ngir balaa xam alquran ndax ab arab bu sell arabi la ñu ngi ko ñu ngi ci biiri arab ñu am fasaaxa te ay woykat dégg na ay woy dégg mbooloo mu am fasaaxa waaye bi mu gisee wax ji ni mu tàbbee ci ab xolam xam na ne wax ji du waxi doomu aadama wax yàlla la loolu moo ko yóbbu ci mu nangu ni yàlla rek mooy buur Muhammad yonent yàlla nit nag bu doonee bu doonee ko ñeme te jàmbaare bu xoolee mbir ba mu doy ko te saase lay yëgal nit ñi ni leen maa ngi ci nangam te doy ma te du ca deltu ginnaaw du ci du ci deng deng ndax nëbb mbir moo gëm wala ak naa feq ci ak manqué te la bokk moo tax mu dem ci yonante bi ba mu ci mu xoolee ba mu doy ko mu dem ci yonante bi daal di seede baati seede yi muy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax gis na ni dëgg kat ca diine jee la nekk waaye nekkul ci lii mu nekkoon yàlla nangu ñaanuk yonante bi ci jëbbalu gi Omar jëbbalu jëbbalu gi Omar jëbbalu doon loo xam ne ak fatxu la ci jullit yi ni ko Ibn Mas'ud jablu gim jablu nek na sabab ci mbolom mbolom bopam ñëpp mbolam ni ko ñi sasuñ ci mom dal di nangoo jablu ñooñu dañu jablu ngir dañu jëfandikoo seen xel mos neexeetu alquran xam ni doomu adama mënut li ñu jablu xam ni danañ daje ak coono yu bari ba ñuy jablu ko ko natabluwuñ ne dañu dajé ak coono yu bari ba ñuy jëblu xam nañu ñu daje ak yeddeel xam nañu ni dina naqari seenu nit waaye yooyu yëpp faalewuñ ko ngir jàmbaar dëgg boo xasee bëggam dara ba di ci soobu du ca ragal ku ko yedd mbaa ku koy bunduxatal Suhaybu Roomi yi wax na ni bi Omar jëbbaloo la islaam feeñ kon feeñuk islaam dafa mel ni da doon xaar jëbbaloo Seydina Omar ibnu Mas'ud nee na bi Umar jébbaloo day ak tey lañ tàmbali di tedd teraanga ci wóor muy di dund liñ bëgg a dund te duñ ci ragal dara Muhammad ibnu Saïd moom nee na daawuñ ñemee julli ci peggu ci ci peggu Kaaba gi ndare bi bi bi Omar ibnu Xataab jébbaloo bi Omar jébbaloo di moom dem na julli fa ñu di ko dóor mu di leen dóor ba islam ne leng ñun ñep ñu ñëmé ñew di fa julli kenn tu ci tax ana lu tax ñu di ko al faruq yonente tabi sallallahu alayhi wa sallam mo wax umar ne ko yalla dafa def deug mo wax umar ne ko yalla di def na ak deug ci ñu umar ak xolam daal di wax ni mom moy al faruq ndax ci mom la yalla xàjjalee diggante deug ak ñen جلنا nañ أبي abi hamr abi omar te mooy zakwa ما wax خصونا عائشة mas كان موت soxna عمر الفاروق يعني kan من ما tuddee omar al faruq nee ya, na mun ma yonente bi moo ko ko tudde ndax jullit yi jëkk omar di jabul dañu daan làqatu ci kër al arqam foofee lañ daan jullee di fa defe la def waaye bi omar jabaloo oh. dañu yonente bi xanaa nekkuñu ci dëgg bu ñuy dund ak bu ñuy dee lépp yonent bi ko ah kay giñ naa ko ci yàlla mi yor sama bakkan ni a ngi ci dëgg ci bu ngeen di dund ak bu ngeen di dee mu ne ko kon nëbb bii ba daal ne ko giñ naa ci yàlla mi la yónni ci ak dëgg ni danañu génn da nga génn nee na ba ñu génnee ñu mat ñaari xam sa moo jiite benn bi bi ci des Omar Xataab jiite ko bañ dugg masjidul haram bañ demee waa Quraysh biñ xoolee gis Omar xool gis Hamza tiitaange dugg na leen joxal musulina dugg loolu moo tax yonente bi tudde ko alfaaruq ndax ci moom la yàlla xajale diggante dëgg ak i nen yonente bi tuddee ay saxaabaam ci li gën a ràññiku ci seen melaw moo tax mu tuddee Aboubacar as Siddiq di ko waaye tudde ko it Atiq tuddee Omar Faaruq tuddee Xaalid Sayfullah an num gàddaayee Omar ibnu Xataab dafa doon ku ñeme ku wóor ku dëggu ci lim nekk ku bañoon ak nëbbutu la di def dara dawul faale ay noonu moo tax bi mu jëbbaloo da ko fesal ba ñëpp xam ne jëbbaloo naka noonu bi muy gàddaay it Seydina Ali nee na xawma kenn ku gàddaay te làqutuwoo ku dul Omar ibnu Xataab moom de ba muy gàddaay dafa ñëw ba ci kaaba mu julli julli gu tey dal di wër kaaba gi wër gu tey dem ci géew yi nit di doon géew géew par géew géew gum ci àgg ne leen maa ngi nii di gàddaay ku ci bëgg sa nday ñàkk la na nga ma topp ci ginnaaw xur wi nee kenn topp ko ku dul ay nit ñi néew ñoo xam ne ci mustadafon yi lañ bokk ñu daan néewal doole te bañ bañ ko toppee bañ demee di leen a jubal woon leen aw yoon Omar ànd naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk xareb badar ak uhat uhat fekke alxandaq ak bayatu ridwaan xaybar ak fatxu makka ak xunayn ak yeneen Omar moom i bokk na ci ñi nga xam ne ba nit ña dawee ci uhat ba tey ca mbooloo ma néew mu néew ma doon aar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk yonent bi moom la digaloon ca bayatu ridwaan mu woo nit ñi ni leen nañ ñëw jaayante si Omar radiallahu anhu jamono ba ñuy fas sulxul xudaybiya fekk na ko fa mu doon lool ànd ci wan neexu ko ndax Suhayl ibn Amr ni yéefa di yabaloon bi mu waxee ak yonente bi bañ bind sart yi ñuy bind mu mel ni lépp dafa dal ci kaw diine ji ndax ba ci njëkk mooy feeg ñeenti at duñ xeex waaye képp ku gaddaayee ci màkk ñëw jëbbalu si da nga ko yabal mu dal ku jóge ci yow ba mu mere diine ji ba del si màkk yëpp da nga ko fiy bàyyi lépp doon loo xam ni bi ko Suhayl ibn Amr waxee yonent bi def ko ko nangul mu mel ni dafa naqari Omar Omar jóg dem ba mu demee ci Aboubacar ni ko wax ah, ndax du yonentu yàlla Aboubacar ni ko ah kay mu ne ko ndax duñ jëli yi ñeet yi yéefar yi Aboubacar ni ko ah kay mu ne ko kon lu lu lu lii nan lañ koy mën a nangoo ci suñu diine ji Aboubacar ni ko fexeel ba takkoog la mu la digal ndax man de gëm naa ni yonent bi yàlla Omar ne ko man mii it gëm naa ni yonent bi yàlla ba mu jógee ci Aboubacar mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ak moom na mu waxee woon ak Aboubacar yonent bi tontoo ko lu mel ni la ko Aboubacar tontu woon waaye ba mu demee ba ba ca mujj ga yonent bi ne ko ana abdullahi wa rasuluhu lan uxaalifa amrahu wala yadiani man day jaamu bi yàlla laa te ndawam laa te du ma wuuteeg ndigalul yàlla te du ma sànk it nee na Omar daana wax ni musuma dañ di sarxe ak a woor ak a julli ak a goreel ngir loolu yi ma def di ko rëccu ngir di ca tiit ba mujj naa sax ne lii aw yiw la ci man ngir mujj na yóbbu ma ci jëf yu baax yu bari bari ngir tiit gu ma ci tiit ci noonu ni ma waxee woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Omar moom la yonente bi ci Saabaan ci atum juróom-ñaar mu ànd ak mbooloo ñu yónni leen ci giirug Bani Hawazin ci peggu Màkka waaye bi ñu xamee ne Omar bi ñëw dañoo daw mu wëlbatiku ñëwaat Madina yonente bi moom la joxoon drapeau ba ca xaybar bi Abu Sufyaan demee bañ bëgg a muy bañ gañee jullit yi ca xaswatu Uhud ca xarib Uhud bañ dem ba ñibbi dese leen Abu Sufyaan ñëw ba yéeg ci kaw dajoo daal di woote ca kaw daal ni xare nii la demee bis bi moo fay bisu Badar ba daal ni onlu hubal mooy hubal feeñalal sa diine nee foofu yonente bi Omar bin Xataab la wax ne ko jógal nga tontu ko Omar jóg ni ko allahu ala wa ajal yàlla moo gën a màgg mu gën a kawe moo gën a màgg daal ni ko ñi ñu rey ci noonu ña nga aljanna te yéen ñi ñu rey ci yéen ña nga sawar Abu Sufyaan ni ko kaay yow Ibnul Xattaab yonente ni ko dama wujji ko Omar ñëw ba jàkkaarloo ko Abu Sufyaan ni ko ni ko sa digg ak yàlla yow Omar ndax rey nañu Muhammad Omar ni ko déedéet mi ngi lay dégg Abu Sufyaan ni ko yow laa gën a deggal say wax ci ibnu qibla ibnu qibla mo wate won ci kaw oh, ni xataltu muhammad legi mu ne ko sa ya wax ji la gëna deggal ci wax ci ibnu qibla wax gëm ni kon mu ngi dund ba mu tàggoo yonente bi di omra ji yonente bi newoon na ko yaa axi fi salih duaik wala tansana ya ne ko yo ya sama mbokk nag nu boole ci sa ñaan gu yew te bu nu fatte omar yonente bi waxal nako ko ba mu ko taggo ngir omra ji ana nan la dencale doomam jooju ñuy xafsa ñu wax xafsa nan la ko dencale yonente bi sama son xafsa dafa nekkoon soxnas ku ñuy wax xunees ibnu abdullah xunees moomu moom la yonente bi yónni woon ca Kisra bi mu nag bàyyi fi soxna soosu li xafsa di doomi Omar Omar dem na ci Abubakar tudd ko ko gaaral ko ko bëgg mu denc ko waaye Abubakar tontu ko Omar mer lool ci loolu dem ca Ousmane bi Ruqaya faatu ba mu ko ko waxee Ousmane ne ko bëgg ku ma denc soxna rek mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmbat ko Ousmane yonent bi ne ko Xafsa ku gën Ousmane a koy denc Ousmane it dana denc ku gën Xafsa ginnaaw bi la ko yonent bi ñaan Omar jël ko waaw Ousmane mu may ko doomam dañuy wax Zeynabu dañuy wax Umu Kalsum ginnaaw bi mu may Ousmane doomam ji jigéen dañuy wax Umu Kalsum noonu la lijjantee mbir mi ba kenn ko ne am mbégte xilaaf ak Omar Omar ibnu Xataab ñu ngi jaayanteeg moom ci bis bi fi Aboubacar jógee Aboubacar moo ko dénkaane mu taxaw taxaween wu mel ni wa Aboubacar taxawoon jihaad jihaad yu mel ni jihaati Aboubacar saxug Aboubacar ak muñam ci dund bu metti di dunde mburum bele di sol mbubb yuñ dabu daaxe amuk doylu lool ubbi ay futuhaat yu bare bare mboolem dëkk yu sol it moo fa yóbbu islaam Omar mooy kiñ jëkk a tudde amirul muminin ndax bi yonente bi sallallahu alayhi wa wuutu ko ñu daan ko woye xalifatu rasulillah daan ko wooye xalifatu rasulillah bi Aboubacar faatoo wuutu ko ñuy wooye Omar xalifatu xalifati rasulillah julli di daal wax ni ginnaaw Omar nag kon ku ñëw wuutu Omar duñ ko mën a wooye nu dul xalifatu xalifati xalifati rasulillah te loolu day gudd kon war nañoo wut tur woo xam ni ku fi wuutoote yonente bi moom lañ lay ci biir loolu la benn jullit ci saxaaba yi daal di xalaat ni waaw ñun ay jullit lañ Omar mooy suñ kilifa ñu ne kon mën nañ koy wooye kilifa jullit yi loolu moo andi baatu ñu ne ko wooye amirul muminin kon moom lañ jëkk a wooye amirul muminin waaye nag buñ xoolee ci settantal dëgg-dëgg ba li gën a wér ci lu ñu war a wax mooy mooy xalifa biñ jëkk waaye amirul muminin ndax tur woowu yeesul ci moom ndax ka ñu wax Abdullah ibnu Jahsh moom la yonente bi yabaloon ci benn armu moom moomee lañ jëkk wooye amirul muminin Aboubacar bi mu ko wóotalee nee na su ma sama borom laajee lu tax nga wóotal fi Omar danaa ko ni wóotal naa ci saw ci sa njaboot ka gën ci ci njaboot ga bi mu demee ba jaayante gi bañ jaayante ak moom ba eggal dal def benn xutba dal di leeral yoon wi mu bëgg a jaar ak nit ñi leeral ay jikkoom yi mu bëgg a doxe bokk na ci lam wax Umar bam mu bam sant yàlla julli ci di leen ni nun day des noo nattu ci yéen nattu leen yit ci nun yàlla wuutal na ma fi ginnaaw sama ñaari àndandoo yi jàllee mu yonente bi ak Abubakar léegi nag fii ma nekk ku fi teew maa lay lijjantil sama bopp ku fi nekkut it danaa fa ña fi nekkut teew fii ci dëkk bi it danaa fa yebal ndaw yoo xam ni doy nañu ma am nañu kat ku def lu rafet lu rafet loolee danañ wut lu rafet dollil la ko ci waaye ku def lu ñaaw nag danañ la mbugal mbugal ma ca war daal wax kàddu yu gàtt daal di yàlla nu yàlla jéggal jéggal leen mu mel ni biñ xoolee wax jëm wax ni ku def lu rafet danañ la dolli ak rafetal lolou moy deug deug ak maandu mooy deug dëgg ab wote ak jamono léegi ji nga xamni nit da fay def lu rafet ñu xébal ko ko ba far day muju tayel ci lolé mu nekkon ndax dem nañu ba tuñ ki nekk ci lu rafet ak ka ca nekkut buñ demee ba ñepp yam nak dañu dem ba dana am ño xamni dañu gadd ci seen waya Omar hek la doxé ndax dañu ku def lu rafet wut lu rafet dolin la ko ca ku def lu ñaaw nak danañ la mbugal mbugal ma yalla ak yow Omar ñaan ni Yalla man de yëg ne ko tar ay mbir la Yalla nang ma def ma noy sama digënté ak jullit ku neew doole la Yalla nang may neng yëg naa ne ko nay la Yalla nang ma tader Omar bin toge nit ñi dañoo am ci mom ak ragal ba ñu daan toge ci penc yi sax dañ ko bayyi bi mu déggee loolu yi mu dajale mbolo daal di yéeg ci kaw mimbar bi sant yàlla tagg ko ni leen dama dégg ngeen wax ni da ngeen ma ragal ngir ne dama tar yéen ngi wax ni Omar da daan tar sa bobu yonente baa ngi fi Aboubacar nekk fi du sun di sunu kilifa Omar nek fi di tar ci sun kaw kon bu demee ba yelif lepp nak ana fun jëm mun len ko wax lol di wax na ndax man de yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tokon ci ginnaaw di ab jamum di ab surgam ba yalla jeli ko fi am naa ngërëmam it maa ngi ciy sant yàlla gannaaw bi it Aboubacar ñëw yàlla jox ko mbiri jullit yi ma topp ko di ab surgaam di ko dimbale di jaxase sama tar ci ak nooyalam doon jaasi joo xam ne dama dañ koo bocci mu nekk ci wetu Aboubacar ba ba ko Aboubacar di dugalaat ci biir mbar mi ma nekk ci lool yi ba ne ko fi yàlla jëlee mu am ma am ngërëmam maa ngi ci sant yàlla tey jii nag yàlla teg na ma ci seen kanam na ngeen xam ne tartar boobee dafa dolli ko waaye nag ci kaw tooñkat yi la dolli ko ak ñi jalgati ak jullit waaye mboolem ñi nekk ci lu baax nekk ci diine dana nooy ci ñoom ba maay raw nañuy nooyantee ci seen diggante ñoom seen bopp waaye nag du bàyyi kenn muy tooñ kenn mbaa kenn di jalgati ci kaw kenn te du damaa tëral ab lexam ci kaw suuf fab sama tànk teg ci kaw lex boobee ba ba may ba ba may jël ak jàmbur delo ko ko fas na maa yene doxe yéen ne li nga xamni moy seeni alal yi ñu dajale di ma ko dénk it fas naa yéene du ma ci dencal dara lepp dina ko genné séddale len ko fas naa buy genn it du genn ci lu deug dëgg yit warlu na ko sama digënté yeen warlu na yit sama digënté ak yeen duma len tabal ci biré bi alkandé duma xol lo xamni loo di faagagal ma di leen ci duggal te ko saa bu ma leen yabalee ngeen dem xare ji it maay doon way jurum njaboot yi ngeen fi bàyyi ba ba ngeen di dellu wax ji nag maa ngi koy wax di jéggalu yàlla di jéggalul sama bopp di leen jéggalul kon xut xutba boobu bi Umar ibn Xattaab déggee ni ko nit ñi ragalee ak ni ñu koy moytoo moom la waxee ak nit ñi Omar daana jekki ba guddi muy wër ci këri nit ñi di seet way néew yi doole ak seeni itte mu di ko xam Saïd ibnu Musayyab wax na ni Omar day wallaahi wax na dëgg ci waatam waatam googu wàcc na ndax lum teengoon day dolli na ko ci béréb yam béréb war a teenge waaye lu nooy lum nooyoo nit dolli na ko ci béréb ba mu war a nooy béréb bu mu war a nooy dana fa dana fa nooy ba far nooy gi ëpp te nekkoon na di way juru njaboot yi ginnaaw bu mu yabalee nit ñi bañ dem xare ji ndax daana jëkki ba guddi mu dem ci jigéen ñi nga xam ne seen i jëkkër seen i borom kër dañoo xare ji di leen wax ne ndax am ngeen benn itte ma jëndali leen ko ndax damay bañ ñu di leen nax ci ci marché yi ci jënd ak li ngeen di jënd ak li ngeen di jaay. ba dañuy yabal seen i xale yu jigéen ñu topp ci ginnaaw Omar mu dem ca marché ba di wër kenn ku ne mu seet la nga bëgg mu waxaale jëndal la ko mu jëndal la ko nga dellu loolu Omar daana ko doxee ak njaboot ki ci ginnaaw bu mu doonee xalif amir amirul muminin wax nañ ne Talha radiallahu anhu dafa mas a génn genn guddi gu lëndëm gis Omar mu dugg ci genn kër daal di génnaat Talha ba mu xëyee dem ca kër googee fekk fa genn màgget goo xam ne dafa gumba ba noppi lafañ Talha ni ko waaw kii ma gis mu di fi ñëw ci guddi gi lu mu fi dem wut soxna si ne kooku de daf may nemmiku diir bu diir bu yàgg ngi mu di ma nemmiku si di xool lu fi taq mu dindi ko li ma bëgg it mu di ma ko laaj di ma ko defal mu xam ni kon loolu la fa Omar doon wut Omar am na genn guddi mu wër gis genn jigéen mu toog ci ab ëtt ay xale war ko di jooy mu teg fa cin loo xam ne daf ko teg ci kaw sawara Omar ñëw ba jege jigéen ji mu ñëwee fëgg bunt bi jigéen ji ubbil ko mu ne ko yow jaamub yàlla bi gone yi lu ci luñ nekk nii mu ne ko xiif bu metti day leen tax di jooy mu ne ko cin lii nga teg ci kaw sawara mu ne ko cin li ndox laa ci def ngir di leen ko naxee bëgg bëgg bëgg ñu nelaw ba ma am jam dama bëgg ñu japp ni rek léegi omam ngi leen di togal ma nekk ci nonu ba bañu nelaw na Omar dafa dal di jekki ne sen dal di joy dal dem ci kër ga ñi denc sax ya dal fay jël ab saako dal fay wut sunguf su bari wut diw ñor dal di jël tandarma jël ay yére jël xaalis lu ko defee def ba mu fees di wax surgaan bi ko daan liggéey ni ko yan yan ma saako bi mu ko yow ya, kilifa jullit yi teema teema ko yanul nee na Omar ko déedéet ma ko yanul sama bop ndax man la leen yalla laj ëllëg ba non la ko gaddo dem yëti ko jigen ja bam dem ba ag yit mom mo jël cin la jël sunguf si daal togal toggal togu gi di yengal di wal ci ron cin li di wal tabo mi ngi bu gudd si fane mo di ko fa jaar noonu la fa toogee ba togg togg gi ba mu ñor mu teg ko woo xale yi di tibb di leen jox bañ regg mu bóof fa di leen xool ba xale yi tàmbalee fa tàmbalee ree mu daal di wax surgaan bi ma la ni ko xam nga lu tax ma toog fii di di xaar ba bañ tàmbalee ree nii mu ne ko dama leen a fekkoon ñuy jooy te liy dalal sama xel mooy ba leen ma leen a bàyyi ñu reetaan bu ma leen gisee ñu ree nag sama xel dal lolo xissa bu siiw la ci ni omar daan wëree ci biir nit ñi di gëstu njaboot gi di seet ci lu nekk loolu kon tekki na ni yan bi ko yàlla yan yegoon na ni yàlla yan na ko ab yan mu fas ko yan ndax wax jëm wax ni man mii lañ leen di laaj ëllëg loolu ak yëg gu am solo la ci kilifa gu mën a wax na ni Omar bi mu jógee Saam ñëw Madina ba tey dafa beru jaar ci weneen yoon ngir bëgg xam nit ñi lu ñuy dund mu romb genn màggat gu jigéen mu nekk ci benn xayma ba fa Omar ñëwee euh, nuyu ko jigéen ji ni ko ana nu Omar ibnu Xataab def Omar ni ko ñibbisi na jóge saal sam mucc dara jotu ko jigéen ji ni ko man de yàlla bu ma ko fayal aw yiw Omar ni ko ah, ana loolu lu ko waral mu ni ko man bi mu fi toogee ba fii nu toll ak ak ci man ci li joxe ba mu ba mu yëlifee jullit yeeg léegi amul benn dërëm bu jógewoon ci moom jëm si ci man Omar ne ko waaye yow Omar du xam ne yaa ngi fii ndax fi nga nekk daa roqe moo tax jigéen ji ne ko subhanallah man ma jàpp ni kenn du du yëlif jullit yi te xamoo ci penk ba ca sowu na Omar daal di jooy daal ni ne waa humaraahu daal ni ne kullu ahadin aftahu minka hatta al-hajais daal di ne cay ñëpp la gën a dégg fekk ba ci màggat yu jigéen yi sax yow Omar daal di wax daal di wax jigéen jooju ne ko yow jaamu yàlla bi ñaata nga may jaayee njàmbat lii ngay jàmbat Omar ndax dama ko yaram ci sawara damay ragal yàlla dugal ko sawara jigéen ja ne ko bul ma reetaan mu ne ko wallaahi reetaan ma dama ko yaram ci sawara rek wax ma rek ñaata bu baag léegi bi mu toog léegi loo ko mën a jox mu ko sonalee ba sonal ko léegi mujj na jënd njàmbat wala muy jàmbat ci ñaar fukki diinaar ak juróom biñ nekkee ci noonu yi Ali ibn Abi Talib ak Ibn Mas'ud daal ak agsi biñ ñëwee ne asalaamu alayka yaa amiral muminin nee na jigéen ji daal di fab loxo bi teg ko ci bopp bi daal Dan woy fuma jëm ndax amirul mu'minin ci kanam nee omar ne ko dara du ci fekk daal wut aw kayit amuko mu dagg ci mbubam momé mu solal mbub mu dëbb daaxe moomee mu dagg ci dal ci bind bismillahir rahmanir rahim li la omar ibn khattab jëndee njàmbat li diw don njàmbat bam mu bes ba bes sangam mu jënd na ko ci ñaar fukki dinar ak juroom ëllëg nag lu mu woote moom jigéen ji fa kanamu yàlla ci kanamu yàlla Omar set na ca loolu yi Ali ibn Abi ñoo moo ko fekke ak Ibnu Mas'ud radiyallahu anhuma mbind moom mu bindoon daf koo jox doomam daal ni ko suma faatoo na nga ko dugal ci biir tàngaay li ndax mu doon awlaay fa sama kanam borom Omar mooy ki jëkk taarix ci taarixu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci weeru rabiul awal ci atum fukk ak juróom-ñaar Omar moo jëkk xalaat ne nañ dajale alxuraan ci benn téere ndax lu ko may dina sànku moo ko xalaatoon ci jamono Abubakar Omar moo jëkk dajale nit ñi ci julli euh, naafile weeri koor yi ndax dina fekk ñuy julli mun leen bu ko defoon benn benn mbooloo jiital kenn moo gën ba noonu la leen teg euh, Ubay ibnu Kaab ci seen kanam wutoon na ñaari naafilekat kenn kuy naafilaal góor ñi ak kuy naafilaal jigéen ñi Omar mooy ki jëkk a dóor juróom-ñetti fukki yar ci ku naan sàngara Omar mooy ki jëkk a wër jëkk ba guddi muy wër njaboot gi set ba xam ci lu ñuy dund loolu mooy ki ku jëkk def ci àdduna Mahmoud mu Xataab Omar moo jëkk a tere ku jaay jaam boo amal doom jaam boo xam ne xas ngeen amul njaboot moo jëkk tere ku ko jaay garab gi nga xam ne ca lañ jaayante woon ak yonente bi bayaatu ridwaan nit ñi dañ faraan dem di fa julli Omar moo digle nañ ko dagg ngir ragal ñu jaamu ko wax nañ ne Omar ba mu ñëwee di foon xaajalul aswad dañu ko xam naa ne aw daj dong nga amoo njariñ amoo lor bu ma gisutoon yonente bi di la foon du ma la foon Omar moo jëkka lii ne ay dëkk muy Koofa ak Basra ak Al ak Asham ak Misra moo leen jëkkale ñu def leen ay dëkk yu doon ay dëkk yu leer ci ni ñu ko xam. Omar mooy ki génne woon yahudi ci jasiratul arab ñu dem saam mu génne waa Najraan yóbbu leen ca wetu Kuufa ca bi mu doonee xalifa ba ñu mu fi jógee fukki at yooyu yëpp at mu jot mooy jiite nit ñi ak aj kon waxtaan yi di ñëw danañ dem ci ni mu dollee al masjidul haram ak al masjidul nabawi danañ dem ci xare yi nga xam ne xare na ko diggante lu mel ni euh, nam yabale woon euh, mbooloo mi ko Abubakar boole lu euh, al musanna mi doon sàkku ay ndimbal ca iraq ñam fa yabaloon ak futuhaat yam def ca saam ak ni jàll jàllale diine ji ba mu ñëw ci Afrique diggante misra gi ba libi